te aimé vidéo bi lolou dina ci am solo dina tax contenu bu bes ñu duggal ngeen daal di si mëna jot way leen di abonné bës cloche de notification bi ñu ñëw nag si demuk premier ministre Ousmane Sonko fële sa Tiwaawoon ñu am buñ fa ko nak maire ba job ci ñi wax que nak ki di Ousmane Sonko nuyu ko mu nekk ay polémique yo xamné ngi commencé juru ciow Euh, dinañ si ñëw ndax premier ministre Ousmane Sonko mel na noonu am déet ndax dina def lu ni mel loolu lépp dina si ñëw ak ay révélation yu ama am solo waaye tamit euh, population bi nga xam ne génn nañ dar ko moom premier ministre Ousmane Sonko mu nekk ci lu loo xam ne daal gisati nañ ko si moom mu ngi noonu moom premier ministre Ousmane Sonko nag def na fa déclaration bu ama am solo daal di nag euh, yëkkati fa ay kàddu yoo xam ne daal lu mat a teewlu la mbirum Cheikh Omar Diagne dafa mel ne nag loolu moom dañ ko close ndax jamono bi moom premier ministre ko Sonko seetlu nañ ko ne nag addu si benn yoon du ñàkk dinañ si ñëwaat gën koo yaatal ñu bàyyi leen ak yu am yi nga xam ne nag amoon nañ ko mu nekk ay révélation yaa waaw am ñu bari le waaye wax dëgg si yàlla nag moom ah, li ko yàlla may ci terrain politique moom amul kenn ku ko may ci Afrique damay romb sax àdduna sax laa lay wax moom li muy dëree ne moom. waaw loolu moom maman moom Abdoulaye Wade defu ko kii def bu dee kii moom fitna moom yàgg na ci histoire politique Sénégal waaw ndax it dañoo yàgg di dictature di jaayante doole waaw waaye nag yàlla na ko yàlla yemale ci nguuru Macky Sall di jaayante doole jàpp ni ñuy tëj sans euh, nga def dara yàlla na ko ci yooyu yëpp muy def woowul nit ñi ci boppam de moom bu doon dafay woo nit ñi ci boppam mën nañ dem di jéem a jël àddee wala muy wax nit ñi lu ñu xamul wala yooyu mais déedéet tey woo nit ñi ci pour ñu ànd defar réew mi waaw lu ñëpp bokk nag boo ko bëggee defar da nga cay woo ña ca bokk ñëpp loolu rek mooy big li loolu la def ah, woon nit ñi ci gëm-gëmam am ñu ko gëm fekk si ko xam nga man Sonko li mu gëm nii ba di ko def man daf ma cee fekk waaw daf ma fekk ma ànd ak ay ñoom Cheikh Anta Diop ak ay Ablaye Wade ak ay ñooñu man bañkat yi laay ànd ak ñi nga xam ne dañuy dox ci dëgg hmm? nit ki nag mën naa dem ba ci biir mu soppeeku mais soppeeku ñun gisaguñ ko ci Seydina Ousmane mu sell mi waaw mu sell mi ku jóg wax la ko hmm, hmm. ñëpp ànd ci nii ba ñi nga xam ne dañ laa contre sax euh, dañuy wax mu sell yi ba pare teg ca leneen ah loolu mbir yàlla la mbir yàlla la yàlla li mu séddale la tollalewul hmm, daa def yu affaire yi ëppante suttante fee gën a duun fii gën a kii waaye moom li ko yàlla may moom ah ci wàllu politique ah seigneur la ci wàllu politique moom ah dama naan wàlliw la ci yonent la ci xutbul la ci ponkal la ci kenn mënu ko ci koy wër benn sens rek maanaam li ngeen di wër ci moom mooy euh, maanaam ñaawteef yi loolu rek ngeen di gis quoi te sax loolu da ngeen koy séen mais du ngeen ko gis ak ñi koy créer di leen ko indil ngeen di ko gëm mais waaju ku baax la. wallaay gis nga maanaam turu ku sell ki koy woowee du hasard ay nit a ngi fi def lu ne te kon mbir bi loxo yàlla da cee ne quoi mais waa ji waa ji baax la ku baax nit ku yàlla may mbooloo mu toll nii topp sa ginnaaw mbooloo. xam nga doomu aadama laa la wax ci noppam de benn nit sax ku mu topp mbir am nga loo yor waxuma la ak nag ay junni junni ay millions nit sax laay wax hmm? euh, yàlla am na lu mu ko defal de wax dëgg fa si yàlla ku baax la yàlla du bind ay daamam ay ay nitam def leen mu gënal ko ci lépp lu mu bind hmm? mu leen di bëggloo kenn te ko amul dara lu mu def ci moom non loolu mënta nekk. waxoon nga nu ko fi waxoon nga nu ko fi ay jamono jamonoy ndam si yàlla si dama lay APR rëpp APR ya yoon nga dal so génnee sa kër di dem ab sax da ngay am problème ak nit ñi ñu ni nii gàmm gaa ngi nii fi nek ni nit ñi ban la gisé ñen ñi ñi la gis ci eh, barab bi nga nek faté na sax li leen andi ci Tiwaawan ñu nga sayo di la siyaar bay siyaar mbuub ma nga sol kenn du yow yalla la barkel de yalla la barkel yalla la barkel motax ñu la bañ man dama leen a yërëm sax maanaam ñu jàkkaarloog jaamu yàlla bu yalla teral nga taxaw ni akuk de dang koy la nga lank dang ko koo iñaane sab xol sab xol ngay de rek te mom heure bu xëy gën di yok manam ngay manam li gëna metti ci si nga bañ sa moromub jam te ki nga bañ heure bu xëy de gëna a am yokute nit ni diko gëna bëgg ni gëna am jam di gëna am fierté xelam di gëna dal yow mi ko kontor nak sa bo xeye da nga gis ci mom image bo xamanteni sa xol day gën di am lu ko metti sa xol di tang te do ci man dara ma yërëm nee na Ousmane Sonko maa leen di yërëm nee na Ousmane Sonko maa leen di yërëm parce que si toroxtaange gu méttee métti la ñuy dund yëguñu ko. yéen lañ naan ku lu xàq wala kaanam mu doon rek dëgg moom ah mu la fekk na fa nit ki moom loo ko bañ bañ bañ loo ko mere mere mere loo ñàkk a ànd ak moom ñàkk a ànd ak moom it ah wax dëgg si yàlla bu ko sosol te jàpp naa ne Ousmane Sonko nuyu su joom kii yëpp ñàkk koo nuyu amulul Ousmane Sonko intérêt amulul Diop si intérêt. ndax Ousmane ko xam na li nuyoo di jëriñ kon nag du jóg dem fekk autorité bu mel ni Diop si di meeru Tiwaawoon ak lu mu bu ko doon saaga ndey sax bu ñëwee da ko war a nuyu tey jii nii euh, Mame mbay Niang mi nga xam ne bokk na ci ñi tax Ousmane Sonko doo euh, doonul tey président Sénégal te seeni tappale Mame Mbaye Niang mu tey bu ko yàlla defoon autorité fal ko tey meeru parcelle Sonko bu demee parcelle ma ci loo xam yi mbiru état la force da koy nuyu kon am na yoo xam ne c'est des c'est des détails macha allah nag ci sa franchise am na yi nga xam ne moom gars yi da nga leen di bàyyi maanaam toppuñu ko. mais nag vidéo bi gars yi ànd ak ñoom ñoo ko ñoo dagg parti bi di def comme tout le temps lu ñuy def Ousmane Sonko bi mu ñëwee ci entrée bi moom Diop si nuyonte nañ saafonte nañ mu doog a dugg est que du peut-être li mu ko nuyu ba pare moo tax nuyuwaatu ko ci biir. xam nga parfois gars yi nag ñoo man sénégalais moom moo soxor ñenn nit ñi ci ñu ma ko sañ a wax dañu bëgg yu teer a teer bëgg ay détails bëgg jaxase bëgg di wone ak xool luy toroxal doomu aadama man farumaak ñu ma ah, mais seetaan naa benn vidéo boo xam bi muy doog a ñëw ci biti ci entrée bi Diop si bokk na ci ñi ko ak accueillir ak ñeneen ak ñeneen te nuyu na ko saafonte ak moom ñu jiitlante ñu dugg boo duggee nag ña nga fa fekk bees kay ñoom ngay nuyu xam naa peut-être looloo indi cas bi rek gars yi nag xool la leen ci neex comme toujours rek mi ngi mel ni kaawu euh, suñu pap euh, Mansour si Djamil Mansour si Djamil famille si la bokk donc moom casquette politique am ak casquette am en tant que religieux ça n'a rien à voir tey lu munti am ala ku li xaal bu Ousmane Sonko teewee Tivaouane da koy recevoir parce que ci famille bi la bokk sët la te muy teel mu yéex bu ko suñu borom defalee gudd fan bés dina jot mu toog mais xoolal luñ def daggati détail di wone nu mu leen di xoolee kii di xool mais bu ñu xoolee kay moo leen supérieur ñoom tooguñ ci suuf moom sëñ si Jamil toogul ci kaw. mais dañoo bëgg fu ñu luy lu nit moo tax yàlla du jóg ci duñu toroxal ci ci ñun ak duñu mbugal mettitu yi dund yëpp loolu ñu ko yóbboo bon nañ soxor nañ bëgg nañ gis luy toroxal doomu aadama leneen ñoruñu bëgg détail ma jox la benn laaj bu ndaw bala ma laa andil profit tax ma lay laaj tey su ma ñëwoon sa kër wàcc sama oto nga ànd ak sa délégation taxaw ci sa buntu kër ma nuyonte ak yow saafante ak yow nga wat ma ci bir kër gi laata may ëski ci kër gi nga and ak benen délégation bo xamanteni ñu ci bir biir kër gi waaye yow bi ngay dem dag ma bayyi ci mbedd mi ci buntu kër bi ma ngi saafante ak gan yi buntu kër bi bima ma ma am ñuma andal ci gan yi fekk yow sal bi ma war a ñëw sa bir kër jitu nga ma sa bir sal ba ndax bu ñew dama lay wat jëru ko buma ma man na la nuyu buma neex bañ na la bañu waye jëru ko parce que nuyonte loolu saafante na lan moo la war yow dama laa fekk sa kër de te dama faa fekk ñeneen ñoo xamante ni bii tamit mën naa am ci kër gi lan dëkk wala mën naa amit dana wàll ci kër gi lan moo la war nga présenté ma leen wala donte la man xam naa leen ñu xam ma kon bu ma ñëwee ñoom ña nga xamante ni bii joxaguma leen loxo ñooñu lay nuyu waaye yow mi ma jëkkoon nuyu si bunt bi yaa ma dal yaa ma attiré non jaratul ma lay nuyu de bu dee ndax am nga ak dégg nag fi fi may wax ak yow kaay nga tontu ma si boo si amul dégg nag ma andil la preuve bi nga xamante ni bii moo waral amu seetlu amook gis-gis ba tax nga siy ŋan bi nga ŋaŋee nag jël sax sa waxukaay ni da ngay wax waaye fekk nag booba da ngaa lot sa la ngay wax parce que amoo sa xam-xam sa yow laay déglu nag ba xam ndax di ma indil ay tontu boo ma indilee tontu bu méngoo ak fi may wax ak yow ma xam ne tontu bi jub na bu méngoowul nag ma indil la preuve bi tax jëru Ousmane Sonko di nuyuwaat Diop si